bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nu ngi nuyu tey ziyaara képp koo xam ne yaa ngi topp jotaay gii di asalafu ma alquran ci kër gi la maison du coran di ñaan yàlla buur bi wa taala yàlla nañu defal tawfiqu zahir ak baatin tey nekk sunu ñetteelu jotaay ñetteelu majalis ci asalafu ma alquran ma ngi démb nan lañu ñu daan dundee ak alquran al karim tey nag ñu fas yéene ñëw ci lenn ci wax yi nga xamante ne saxaaba yi radiallahu anhum def nu ko soññuñu ci jotaayu alquranul karim sàkku ci ñu ñun ñu gën a góorgóorlu doy na ci ñu njëkkee ci waxu Uthman bun Affan radiallahu anhu mu nekk wax joo xam ne ku nekk ci ñun daf ko war a mokkal waaye bàyyi ci xel sa diggante ak alquran mu ne law tahurat qulubuna maa shabiat min kalaamillah allahu akbar law tahurat qulubuna maa shabiat min kalaamillah nee na su fekkoon sunu xol yi laab na du mos a suur ci alquran kon tey jii nañu xool ki nga xam ne su jàngee tuuti ci alquran mu doyal mu gis ne suur na wala ki nga xam ne jàpp na ne moom doyal na ci alquran wala ki nga xam ne day toog bésub lëmb du jàng alquran salaf yi am na ci ñoo xam ne suñu toogaan jànguñu seen wirde alquran da nga leen di fekk ñuy jooy yooyu yëpp ay jotaay la dañ ci ñëw incha allah ku ñu topp di nga suur kël ci xam la nga xam ne moom moo ca war incha allahu taala kii toog semaine bu lëmb du jàng alquran waaye am ñoo xam ne dañuy toog weer du ñu ubbi alquran jëmm ji nga xam ne toog na atub yàlla ubbiwul kaamilu alquranul karim yenul say loxo dugg ci marché bi jooy sa bopp law tahurat qulubuna ma shabiat min kalaamillah Othman bun Affan radiallahu anhu moo ko wax nee na sunu xol yi su du doyal mukk ci alquranul karim ni ki noonu Abdullah ibnu Mas'ud radiallahu anhu yal na ko yàlla gërëm imaam Tabaraani daf noo nettali wax joo xamante ne yu mat a bàyyi xel la mu nekk question boo xam ne ku nekk laaj ko bopp fi nga ko déggee mu ne man ahabba an yaalama annahu yuhibbu allaha wa rasulahu képp ku bëgg a xool def analyse tey jii nañu def analise analyse bi ku nekk yaa defal ta bopp bul dem ci benn hôpital bul dem ci benn docteur na ku nekk defal boppam analise bi man ahabba analyse bi nag mooy lan ban feebar ngay xool da ngaa bëgg xam ndax yow bëgg nga yàlla ak yonent bi réew mi koo fi xool nga ne ko bëggoo yàlla di ngeen xeex koo fi xool ne ko bëggoo yonent bi dina la andil problème ay jafe-jafe yu bari waaye Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu daf ñoo jox benn solution nee ne ku bëgg a xam ndax bëgg nga yàlla ak yonent bi defal analyse bi ma lay wax mu ne fal yandur defal analyse bi xoolal mooy lan fa in kaana yuhibbu alquran na xool ndax bëgg na alquran xoolal ndax bul nax sa bopp tëjul nga xalaat nga xool ndax bëgg nga alquran al bi laajal sa bopp ndax dëgg-dëgg bëgg alquran bëgg nga ko alquran nee ne fa huwa nee ne su fekkee ne fa in su fekkee ne bëgg na alquran fa huwa yuhibbu allaha wa na ko leer ne bëgg na yàlla bëgg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar bu yomb la kon ku nekk fi nga jotee jotaay bi toogal nga xool ndax bëgg nga alquran soo bëggee alquran rek bëgg nga yàlla bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki doon wax itam jëlee na ci ki nga xam ne mooy Malik mu jëlee ci Yaxya bun Saïd mu nekkaat wax ju riche goo xamante ne Abdullah ibnu Mas'ud ba léegi radiyallahu anhu saxaaba bu mag boobee moo na ko nettali nee nañ leen jotaay gi dañuy nettali salaf yi ñoom nañu daan dundee alquran di ko càmbar di ko dund ba mu yegge leen fa nga xam ne foofee la ñu yegg Abdullah ibnu Mas'ud dafa mos a wax benn jëmm mu ne ko innaka fi zamanin kathirun fuqahaauhu xoolal ci jamono saxaaba yi mu xool kenn mu ne ko yow yaa ngi ci jamono joo xamante ne ñi nga xam ne ñooy boroom xam yi dañoo bari lool kathirun fuqahaauhu boroom xam-xam yi dañoo bari lool waaye qalilun qurraauhu jànkatu alquran yi dañoo tuuti lool dañoo néew ci jamono jooja tey jii qurra yi bari nanu lool waaye boroom xam-xam yi néew lool donte ñi ñuy tuddee sëriñ diw ñu ngi fi استاذ ديو نيوغي فيه شيخ فضيلة شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله كيف تكون شيخا أو أستاذ تحمل الألقاب ولا تتصف بأي مادة ولا تعرف بأي فن من الأستاذ ديو تأمل بن فن بن دومين غو خمنا ميتريزي غو كوشي الإسلام جي بسنجا فاتي والسريو سنجا يكتس الأخوني ميتريزي ناو فن سنجم بباري سنلني ديو بولي وانچ سرين ديو رك نمر بولي وانچ شيخ ديو نمر بولي وانچ أستاذ نمر غني دي توتال Abdullah bin Mas'ud nee ne waa ji yaa ngi ci jamono joo xam ne borom xam-xam yi bari nañ lool waaye jàngkatu alquran yi maanaam ñi nga ne ñooy toog jàng alquran mu neex mooy qurra loolu lañ ci nam ñi nga xam ne ñoom ñooy jàng bari bari wuñu mu la goo xam ne tuxfadu fii xududul quran dañu cay sàmm li nga xamante ne moom mooy alquran yi maanaam dañ cay jëfe alquran xoola saxaaba yi abdullah ibn mas'ud nee ne waa ji joo xam ne dañuy jëfe alquran saxaaba yi tout le temps la ñuy njëkk xool ndax digle la ñu def ndax tere la ñu bàyyi loolu la ñuy njëkk a xool du ñu xool ndax baatuwaa ji neex na wala ndax lii ah yu yu yu xaw a doy waar mu ne toxfadu fihi xududul quran yaa ngi ci jamono joo xam ne dañuy jëfe alquran wa tudayaau xuruufu waaye ñuy sànq la nga xam ne mooy ay xarfam parce que ñoom bari ñu woon ñu mën jàng parce que ñu bari ñu ngi woon ci jihaad yi waaye bari ñoo xam ne dañuy door a dugg ci l'islam ñaare duñu maîtriser alquran maîtrise bi nga xam ne moom moo ci war duñ ko jàng-jàng bi maanaam jàngin comme tajwid ni mu amee tey jii ci maqaamaat yi waaye riwaayaat yi mu nekk jàngit goo xam ne bu wér mu ne bari na ñoo xam ne suñu jàngee nga gis ne jàng ji mën na bañ a wér comme na mu waree waaye ñoom lu ñu dégg ne digle la defee nañ ko jëfe nañ ko waaye luy tere nga gis ñoom ñu daal di koy bàyyi qalilu man yas'al ñiy laaj tuuti lañu waye kathiru may yu'ti dañuy joxe rek dañuy joxe bari wuñu dañu amon jom ci walu laaj waw manam duñu nek di yalwaan nit ko xamne ne am nga katan wara a dem sa bop duñu wër di ñaan rek waye ñom dañuy wër di joxe di joxe di joxe di joxe parce que ku nek da nga bëgg joxe yutiluna fihi sala dañuy guddal seen julli saxaaba seen julli da doon gudd lool parce que xam nañu ne soy jang alquran ci julli alquran gi nu mu gëna guddé rek tuyaa bëggay gëna bari rawatina julli fajar yutiluuna fihi salaa seen julli dafay gudd lool wa yaqsuruuna ñoom dañuy gàttal xutba yi maanaam dañuy gàttal xutba yi guddal linga xam ne moom mooy julli yi lam bëgg a wax mooy seen wax dafa woon seen jëf bari yubadduuna amalahum qabla ahwaihim ñoom dañuy jiital jëfe te sellal duñu jiital muk seen intérêt tey jii nag gis nga gaay yi dañuy jël aaya alquran yi di ko wommat jëme ko ci la nga xamné moy seen intérêt def jëf ju na gañ dal di koy dagaral ci téré borom bi subhanahu wa taala melni ni soo am ñu fi xam alquran yow ñu la ko gëna xam fu wuf ñi nga xamné dañuy sóoraale asbaban nuzul ilma tafsir wa ma ila dalik mu na ñoom dañuy sellal ci seen jëf waye duñu jital mukk la nga xamné ne moom seen banexu bakkan seen téyu bakkan waaw gaay dañuy jël alquran wala diko doxale ci nga xamné ne seen banexu bakkan mu ne nak wa sa yati ala nnaasi zaman mu ne waa ji nag jamono ngi ñëw nag allahu akbar mu ne ko am na beneen jamono buy ñëw ci nit ñi qalilun fuqahaauhu borom xam-xam yi dañuy tuuti lool waaw borom xam-xam yi duñu bari de tey jii ñiit wuyoo ustaas ci dëkk bi bari nañ lool waaye balil insaanu ala nafsihi basira suñu delloo ci seen bopp xam nañ ne ñu ngi woote woone sëriñ diw sëriñ diw waaye suñ ko nattee ci xam-xam nekkuñu ko qalilun fuqahaauhu borom xam-xam ya dañuy néew lool كثير قراءه قراء يعني بري كوجوكني أنا قارئ فلان شيخ فلان لا حول ولا قوة إلا بالله من يعني بروم خم خم توتي قراء يعني جوك كوجوكني من قارئ لا كوني أخباترني قارئ لا لا حول ولا قوة إلا بالله عبد الله مسعود قول اني أت لدي جني جني أت لوب جني أت ويملني وحدي مجني قول البيانت بجني أدولا أه أبنا جني أت ويملني وحدي تيجي 2020 لكو وقت سنغال borom xam-xam yi dañuy néew qurra yi jànkatu alquran yi bari lool allahu akbar mu ne yuxfadu fihi xurufu alquran dañ fay mokkal la nga xam ne mooy xarfi alquran maanaam dañuy mokkal alquran jàngin yi xuruf yi mooy jànginu alquran yi xuruf alxurufu sab'a jàngin yi gars yi dañuy toog mokkal ko xafistu alquran ah mokkal naa ko ci waaye xafsan asim mokkal ko ci wars mokkal ko ci qaalun mokkal ko ci shaba mokkal ko ci bazzi mokkal ko ci yëpp waaw ana Mujaaz <laughs> ya salaam ya salaam lu baax la waaye góorgóorlul lii nga xam ne moom la ñuy moytuloo ci jamono ji mu bañ laa dal watu day yaaw xuduudu waaye ñuy sànq li nga xam ne moom mooy frontière u alquran yi lu alquran digle doo ko def te nga yow jàngkat nga lu alquran tere yaa cay jiitu te nee nga yow xaqaare nga xoolal Abdullah bin Mas'ud asalaf yàlla na yàlla feel nu leen kañ la wax wax ji jamono ngi ñëw jàngkatu alquran yi bari lool waaye jëfekat yi dañuy tuuti lool kathirum man yasal nit ñi dañuy laaj rek yalwaan gi waaw waaw mel ni dañuy modifier yalwaan gi waaw qalilum man yuti joxekat yi dañuy tuuti nit ñi dañuy nay ci wàllu joxe yutiluuna fihi alxutba xutba ya day gudd lool xutba gi day gudd maanaam wax ji day bari wa yaqsuruuna salaa julli day gàtt tey ji ci wàllu salaat xam na dinañ ci ñëw dinañ leen andil ci wàllu temps ci wàllu li nga xam ne moo rot ci téere julli mag ñi maanaam saxaaba yi seen julli seen tisbaar ñaare ñaata minute la doon jël wala suba si ñaata am na léeg-léeg subhanallah julli gu jël waxtu seen julli da doon gudd parce que dañ daan xam kan la ñu taxawal borom bi subhanahu wa taala waaye Abdullah ibn Mas'ud nee na jamono ngi ñëw dañuy la nga xam ne mooy julli ya xoolal léegi imam bu fi kabbar julli ga bëgg a weesu cinq minutes gars yi ne dafa dafa dafa yéex 5 minutes laa la wax de té jeunesse bi nga xamné ño am doolé dañuy dem football yi match première mi-temps 45 minutes deuxième mi-temps 45 minutes té ba paré suñu niilee dem luñu tuddé xawma xaw ma temps lañ ko tuddé xawma nan moy bañuy ñuy prolongation wa ngeen fàttaliku naa ko ñu démat ca kon nga football lu upp 120 minutes waaye mënoo taxaw julli lu upp 5 minutes dem nga ca soirée ba waja di woy woy na nga taxaw ba fajar waaye mënoo taxaw ci kanamu borom bi lu upp 5 minutes da ngay ne c'est ça تي ميرسي بي لن لا القران الكريم نينا يخسرون الصلاه دانيو غاتال جولي يبدون فيه اهواءهم دانيو جيتال سين انتري سين بانيخي بكان قبل اعمالهم دانيو فينال سين سين بغ بغ بلا نيو سخ جي ديف تي يالا بور بي وتعالى دو نيو ديف لن تي يالا بور بي وتعالى تخ مبوكي في نيو تيجي سونو جوتاي بي تاي مو نيتلو جوتاي نالن لير ني كو بغ موچو تي نياار يي عبد الله بن مسعود نينه ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن képp yàlla moom moo warlul moom moo assuré li ñu tuddee assurance ñëpp ngi wut assurance nag kaay leen ma jox leen assurance xam ngeen assurance bu wóor bi fan la Abdullah ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhu nee ne yàlla dafa assuré ki nga xam ne mooy jàng alquran yàlla ko assuré ci ñaar yii laa yadillu fi dunya du sànku mukk ci àdduna ki topp alquran du sànku mukk wala yashqa fi l te bu yowmal qiyaame moom du texee di mukk day bokk ca ñëw texeña bi abdullah ibnu abbas waxee aaya bi mu waxee li rek mu daal di jàngal aaya ga fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa ku topp njubu yàlla gii di fa fala yadillu ay fi dunya du sànku mukk ci àdduna wala yashqa ay fi l axira du texee di mukk alaxira kon mbokk yi nañu jégg nañu dégg te jëfe nañu góorgóorlu baatiru baatiru nañu góor góorgóorlu gaawantu balaa munuy raw tey lii moo nekkoon suñu ñetteelu jotaay ci asalafu ma alquran نوغي زياره نيب ньо خامني نوغي توپ جوتاي ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان صلى الاله على النبي وعليه ما لبى ملب او تهلل محرم